asalaamaaleykum uh, waa Sénégal man Pa Ndiaye Guirigara maa ñëw pour waxtaan ak yéen uh, en tant que doomi bàjjen doomu nijaay tey wax ji lu neex dëgg moo war feeñ te incha allah dinañ feeñal dëgg gi tey bu usmaan Sonko ak Pastef tu ci les sénégalais la majorité sénégalais moins de 800 000 personnes en commençant par 2019 le thème 2014 je pourrais dire moins de 100 ou 200 000 sénégalais qui ont sympathisé avec moi te ñooñu ñooy sénégalais yi dëggu les premier cent deux cent mille sénégalais ñoom ñoo bëggutoon injustice ñoo bëggutoon jaay doole ñoo bëggoon dëgg ñoo bëggoon jub bi Macky Sall di dàq Ousmane Sonko ci liggéeyam ñooñu ñoo taxawoon ci booram te journaliste bi njëkk taxaw ci booram Pape ala ñaan la du kenn du keneen du ñaar du ñetti nit benn Pape ala ñaan moo wóolu Ousmane Sonko tendre micro bi jox ko ko mu wax ak àddina si wax ak sénégalais yi taxul ñu bari wóolu ko ñu ñëw ba mu lancé livre bu ñuy ooyee solution soi-disant intellectuels yi commencé nag di ko xaw a wóolu mais taxul taxul parce que àddina si hypocrite yi ñoo ëpp nit ñi jub ñi euh, ñu doxal 2019 li am am ci élection yi mu génn troisième ci kàttani yàlla sénégalais yi commencé di ko xool noon yi commencé di ko xeex ne noon yi ñoo ëppoon soppe yi noon yi commencé di ko lalal ay plan yu bon a bon a bon a bon di ko ooyee ay salafis di ko ooyee ay criminel di ko ooyee façon yi tur bu ne yebu ñu foofu ñu commencé di ko lalal ay plan plan aji saar ñëpp gis nañ ko fi tey ñuy wax ci plateau bi yépp di bëgg bëggulu usmaan Sonko ak Pastef ñooñu ñoo nekkoon ci plateau yi di xas Ousmane Sonko naan ko demal uyu ji Ousmane Sonko réepis Ousmane Sonko violeur Ousmane Sonko nii Ousmane Sonko nele loolu di dem di law at ñaari at taxul usmaan Sonko crédibilité am di gën a yéeg ci kàttani yàlla pastef ñu bari xamuñ woon luy pastef waaye pastef idéologie la woon idéologie boo xam ne parti politique ci lañ ko lal cadre yi ñu bari xamuñu leen woon Ousmane Sonko kese lañ xamoon ba Ousmane Sonko xàllee yoon bi nag ci la cadre yi yi commencé di génn di dem ci plateau tele yi ñu leen di ràññee biir Pastef jamono jooju naxare woon na torop maasi Pape Alé gi suma maas bi nga xam ne gis nañ leer ci usmaan Sonko di ko jàppale mu metti lool nga xam ne am na place yoo xam ne bu ñu fa demaan sax du ñëmee tudd turi Ousmane Sonko ne yow kenn kese da ngay wéet ay nit wër la ngay défendre Ousmane Sonko ñu lay xoolee yeneen façon bët yooyu yépp ñun jaar nañ fa kon donc tey bu neexee ba askani Sénégal yépp bëgg Ousmane Sonko nañu xam ne Ousmane Sonko ci kaso bi bu Sénégal neexee ba soppe usmaan Sonko yi ñii ñu rey leen ñii ñu tëj leen ci kaso kaso yi nañ xam ne loolu tey la du démb lu nekk nag ci àddina dañ koy teg ci yoon yi uyu ji seen borom uyu ji nañ seen borom yal leen yàlla yërëm ñi nekk ci kaso yi ba tey ñu ngi ci kaso yi li fa des ay téeméeri téeméeri téeméeri doomi aadama ba léegi ñu ngi des ci kaso bi ñi xam nañ leen ñeneen ñi xamuñu leen Ousmane Sonko basiiru Diomaye fay ba léegi ñu ngi ci kaso bi est-ce que ngeen bëgg ñu toog une minute de plus ci kaso bi tey koo ci laaj mu ne la déet déet waaye ba ñu yëkkatee amnistie bi ñépp taal seen rajo ñi nga xam ne ñaar ñetti at ñeenti at ci gannaaw faale wuñu Ousmane Sonko di ko xas di ko tuddee façon tur bu ne lu bon ci àddina ñooñu ñooy taxaw tey naan waa Pastef war ñoo ànd ci amnistie bi dañoo xamul luy amnistie moo tax parce du loi boo xam ne kenn mënu ko fee génnee ëllëg constitution bi permettre na ko parlement bi législatif bi ñi ko vote mun mun na ëllëg ñeneen parlementaire ñëw vote ko génnee loi bi ñu def enquête yi samp commission d' yi képp koo xam ne yaa ngi àndoon ak Macky Sall di def lu bon dinañ la oo ci commission d'enquête yi nga wax yu bon yi nga def bu boobaa victime si dee wax ak wax ak wax ñooñu seen wax ne seeni famille dinañ taxaw te li leen état war a compenser li leen li ñu leen war a dédommager yépp dinañ leen ko dédommager ne ku dee dootul ñëwati ci àddina waaye yi ñu gaañ ñi ñu yàq seen seen seen seen seeni kër ak seeni seeni euh, euh, oto ak seeni euh, naka la tudd seeni commerce ak yooyu noonu yëpp dinañ ñëw taxaw alkaati yi ak police yi ak nervi yi yëpp dinañ ñëw taxaw lépp ay leer ku ñu war a punir dinañ la punir koo xam ne dangay jéggal lu ñu jéggal la dinañ la jéggal loolu dina am ëllëg incha allahu rabbi tey nag buñ toogee di déglu plateau yi ñii di wax ne waaw Pastef bu ñu voté loi bii ça veut dire que turam jeex na ci piri nit ñu baax ñoo ëpp nit ñu bon ci biir Pastef ak ñu yéenee Pastef lu baax ne Pastef du Ousmane Sonko Pastef xel la ak xalaat Pastef projet la Pastef dund la pour dundal askani Sénégal Pastef dafa ànd ak ay jikko yu ñuy ooyee honnêteté jikko yu ñuy ooyee éthique jikko yu ñuy ooyee moral don de soi comme ni koy waxee jikko yu ñuy ooyee jàmbaar ak liggéeykat loolu idéologie la loolu jikko la ñuy ooyee seen bopp Pastef tey trois quarts bi yépp amewuñ jikko jooju xëy na riirandoor moo leen ci yó moo leen ci yóbbu ak yaakaar waaye am na ñoo xam ne tey bu ñu téyee ay post nga xam ne ñii duñu waa pastif loolu yëpp ñu ngi koy séentu ëllëg ñu ngi koy suuraale bu leen foog ne Pastef yi fi caaxaan la parti politique nag dafa ànd ak stratégie ak tactique tey ñi ñu gën a so soxal mooy ñi tëdd ci kaso bi war a ñibbi seen kër dem ci seen famille yi en premier temps nous avons seen liberté provisoire le temps que nous dem ci élection yi campagne ñaan nit ñi carte ñu may une carte ñu gagné élection yi former un nouveau gouvernement tas assemblée nationale bi nga xam ne niñ ko ken xamut lu muy nuru képp ku buggatee nekk député ëllëg sa waa gox ñoo lay bugg ñoo lay fal waaye benn parti politique du la fal indirectement même boo bokkee pasteur sax da ngay dem ca koñ ba yow sa tour, sa parti pasteur la tudd waaye Ismaïla Ndiaye nga tudd Ismaïla Ndiaye nak la nga liggéey ca gox booba noonu nit ñi bu ñu la wóoloo dinañ la sànnil boo fa liggéeyulee lu baax duñ la sànnil te Pastef daf koy perte kon waa Pastef bu ñuy tànn nañ xool bu baax nit ñi ñuy tànn di leen présenter comme député lii mooy wax ji fii lañ toll Macky Sall jeexal na dafa war a dem waaye ba léegi lenge yaa ci loxo Macky Sall dominé parlement bi Pastef signé euh, euh, voté ànd loi Amnesty, bi ñàkk voté ànd loi amnistie bi du du loi amnistie bi dina comme loi ba ñu le mois dernier yóbbul ko conseil constitutionnel mu jël ko taxañ ko sanni ko fële ils ont aujourd'hui au minimum 104 candidats euh, députés 104 députés fu taxaw loi buñu bëgg a voté dinañ ko voté té kenn mënu ci dara Pastef mënu ci dara askan bi mënuñ ci tous kon tay buñ togué di commencer nan Pastef buñ voté li buñ votee lële buñ votee nii buñ votee dañuy yàq seen crédibilité dañuy yokk seen crédibilité yooyu yëpp ay waxi caaxaan la waxi ñi nga xam ne tey lañ soog a am cofeel ci Pastef ak Ousmane Sonko en 2019 ñaata votant boo amoon presque 4 million et poussière ñaata la ci Ousmane amoon 800 000 3 millions 400 euh, sénégalais 200 000 euh, sénégalais yi voté pour Ousmane Sonko et Pastef 2019 il y a à peine 5 ans kon Ousmane Sonko et Pastef c'est xol duggal andal démb ba muy métti nekkuleen leen fa woon Pape bi muy jël risque nekku leen fa woon Pape Alé mi nga xam ne moo jëloon risque ci Macky Sall ba fal Macky Sall Macky Sall jël na Pape ñef ci kaso bi seetut ne moom moo ko faloon en tey ku war a ubbi gémmiñam wax ngay journaliste di chroniqueur di di di borom borom. Euh, képp koo xam ne daal yaa ngi wax ci réseaux sociaux yi munoo raw Pape Alé Niang dëgg bu jotee nañ ko wax ñun nag ñun ñooy seen doomi ndey ak seen doomi nijaay dinañ leen fàttali démb balaa tey tey neex na lool kenn ku ci nekk yaa ngi bugg a jege Pastef pour ëllëg bu Pastef toogee ci nguur gi nga taxaw firi sa dënn firi ubbi sa gémmiñ waaw maa doon def lii démb maa leen doon jàppale fële démb maa leen doon dimbale fële barke démb feesul suñ bot ne ba muy metti gisuñu leen ba muy tàng gisuñu leen kon doog tey bu melee nii neex nga xam ne dara desul lu dul yëkk cin bi ñépp dinañ taxaw de ci laa bokkoon bañee ñu kenn ñépp lañu woo waaye Pastef xel la xalaat la pensée la projet la idéologie la ngeen xamee ko noonu du càggeen de dama doon yuuxu pour Pastef démb de tey mun naa def lu ma neex ëllëg mun naa def lu ma neex yaa ngi nax sa bopp de loolu du Pastef de Pastef jikko la de jikko ju jub jikko liggéeykat jikko ñeme dëgg loolu mooy Pastef képp koo xam ne nag amuloo jikko jooju pareel pour sa désert désespoir demain demain doo kontaan parce que feeñ tey bu nga indi ànd ak sa jikko démb bi ne Pastef bu ñu toogee comme feeñ naa tey ëllëg war nañ ma defal lii war nañ ma defal lële war nañ ma placer fii war nañ ma placer fële bu ko defee nag ma door sama jikko ja ma amoon barke démb yaa ngi nax sa bopp Pastef nañ la teg sa place Pastef nañ la yar Pastef nag duñ dóor duñ rey duñ teg kenn injustice waaye ku teg sa bopp injustice ku teg sa bopp loo xam ne lii nii du dëgg du yoon Pastef dina la teg sa place ëllëg dama bëgg ngeen xamee ko noonu te xam ne Pastef jikko la Pastef idéologie la Pastef du nekk loo xam ne rek caacaa cambal euh, ku ku daax wax wax ju neex ku daax défendre ku daax lii ku daax lii déedéet ci sa jikko lañuy ñuy seet boo toogee tey ñu naan la Basiiru mooy Jomaay Jomaay mooy Ousmane usmaan mooy Jomaay Basiiru mooy Jomaay ca jikko ja la bokk ñu ndey ak baay waaye ñoo bokk jikko Pastef nag ku fa bëgg a yàgg sa jikko moo la fay teg loolu dama bëgg ngeen xamee ko noonu di leen gërëm di leen sant di leen wax ne de temps en temps dinaa bëgg di leen fàttali façon yi dëgg yi di leen gërëm te di ñaan tamit ñu tasaare audio bi nu mu gën a yaatoo man la seen mbokk Pandiaye Girigara ci Banjul asalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala wa barakaatuhu te ngeen audio bi ni mu gën a yaatoo jërëjëf jëf ci déglu bi